Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te salaamaaleykum mbokk yi amati nañu mbégte ak bànneex pour ànd ak yéen waaye nag tey Sénégal dafa euh, xëyee li nga xam ne bi moom moo di euh, naqar ndax fële ca yoonu euh, Kaffrine bi tey ci trois heures du matin jàpp 4 heures ñaari bus ñoom ñoo fa daal di mbëkkante ba mu am ay jëy yu bëree bëri bëri am na sax ay moor fi mu toll sànq ñi ngi woon ci 40 jóge nañ ci 40 fi mu toll nii ñu ngi ci presque 60 et quelques ak. blessé yoo xamante ni bi booba tay ñoom itam dafa dafa grave mbokki internet yi comme niñ koy euh, faral di defee ak yenn saa su nekk di leen jox information yi ngeen euh, soxla ba tax na tey bu ñu ñëwaatee li ci li nga xamante ne moo waral accident boobu wax nañ ko léegi euh, fële nga xamante ni ci Kaffrine ñaari oto yi ñoom ñoo fa daal di daje ba mu am ay moor comme niñ ko waxee léegi mu mel ni yoonu Kaffrine bi dañu war nañ cee jóg ndax ku ne xam na ne booy dugg Kaolack ba ni ngay duggee Gàmbi yoon bi yoon la boo xamante ni bii tey oto yëpp fa la ñuy jaar te boo moytuwul jëy dafay am ndax chaque année gis nañ ko la fois passée euh, euh, camion bi nga xamante ni moom moo yéegoon ci kaw taxi bi euh, ci même route bi la mu mel ni yoon boobu nekk na yoon boo xamante ne bii dañ ko see teel a yoon boo xamante ne bii dañ koo dañ ko dañ ko war a defar même bu dee ñaari tali la sax ñu ut benn tali boo xamante ne bii pour àll la bii di pour retour en tout cas mbokki internet yi comme ni leen ko waxee rek ni ngeen ko bëggee rek lañ koy defee ak yéen tey nag boo xoolee euh, lii euh, am ci ay jëy accident bëri na loolu ci ren gi rawatina ci euh, yoonu Kaolack bi gis nañ ne li ko waral nag benn bokk na ci ci tali boo xamante ne bi tali bu xat la tali boo xamante ne camions yi fa la ñuy jaar maliens yi fa la ñuy jaar waa Kaolack fa la ñuy jaar jakartaay fa la ñuy jaar oto yu ndaw it fa la ñuy jaar te remarqué nañ ne ñàkk daw ndànk bi aussi mi ngi ci joué bu baax a baax a baax mbokki internet yi comme ni leen ko waxee léegi li nga xamante ni moom mooy waral accident yu bëri yi bokk na ci chauffeur si nga xamante ni bii du nelaw bëgg def aller retour ci benn benn benn yoon bi loolu bokk na ci li nga xamante ni bii tey mooy waral accident yu bëri yi ñàkk remplaçant yi aussi am na ci am na ci solo ndax euh, chauffeur boo gis mu jógee Kaolack ñëw ci yoon warul delloowaat oto bi oto bi da ko jox keneen bu remplacer ko pour mën a dellu mais dañuy gis ne chauffeurs yi ñoom aller retour yëpp ñoom ñoo koy def ba du doot ñu mun sax toog wala ñu ànd ak seen xel pour dawal normalement loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne bi moom moo waral accident yu bëri yi ba tey mbokki internet yi euh, chauffeur si nga xamante ne bi dañuy am lu ñuy jëfandikoo naka su dul noonu balaa ñoo euh, dawal li nga xamante ne moom moo di oto bi pour bañ nelaw loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne bi tey dafay causer accident yi euh, gis nañ ko chauffeur su bëri yoo xamante ne bi balaa ñoo mën a dawal faw ñu am lu ñu lu ñu jël lu ñu jëfandikoo pour mën a pour mën a pour mën a bañ a nelaw te alors que fi ñuy jëm dafay daal di sori loolu mbokki internet yi wax nañ leen ko nee nañ leen euh, ni ngeen ko bëggee rek lañ koy defee waaye tamit nag ba tey euh, dañ ci euh, dañ bokk na ci li nga xamante ne moom mooy causé problème yi accident yi muy yor sa téléphone di ko manipuler saa su nekk nekk ci li nga xamante ne moom moo di whatsapp bi waaye tamit nag nekk ci li nga xamante ne moom moo di Instagram beeg yeneen ak yeneen bëgg dawal di Snap ak yooyu bokk na ci li nga xamante bi moom mooy causé li nga xamante ne moom moo di. accident yi euh, dawal sans permis aussi munoo dawal yor oto bi di ko dawal loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne bi war nañ cee jóg mooy posé euh, accident yi waaye tamit nag ba tey mbokki internet yi euh, ci biir loolu euh, ñi ngi chauffeur si nga xamante ne bii wax naa ko léegi ñoom ñi nga xamante ne bii dañuy yor ay permis légère bëgg dawal lourd yooyu tamit bokk nañ ci li nga xamante ne moom mooy waral accident yi ndax yow mi nga xamante ne nga def légère oto bi mën nga boo boo yoree lourd di sàcc di dawal mën nga bañ a contrôler li nga xamante ne bii moom moo di Ah, oto bi ba tey mbokk internet yi ba tey rek comme niñ koy waxee euh, li nga xamante ni moom mooy causé euh, accident yi ci euh, tali bi ci waaye tamit nag bokk na ci ci li nga xamante ne bii moom moo di réewande gi nga xamante ni moom mooy am ci tali bi comme niñ koy faral di waxee indiscipliné bi nga xamante ne bii tey mooy am ci tali bi jàpp oto di ci foo jàpp tali bi di ci foo loolu tamit bokk na ci li nga xamante ni bii tey posé na mi ngi causé accident yu bëri. boo xoolee nag euh, ren euh, li fi am ci ay accident bëri na loolu barki démb rek gis ngeen euh, benn camion ni muy def jakarta bi waaye tamit nag Euh, gis nañ euh, oto bi euh, camion bi nga xam ne yéegoon na ci ci kaw taxi bi loolu boobu ak léegi matul sax at fële la woon tamit ci yoonu Kaffrine bi mbokki internet yi ba tey bu ñu ñëwaatee ci li nga xam ne moom mooy causé moom moom mooy causé accident yi ñu koy ñu war koo moytu bu baax a baax a baax a baax bokk na ci li nga xamante ne bii moom moo di saa su nekk comme ni leen koy faral di waxee rek li nga xamante ni tey moom lañ leen di indil mooy euh, li nga xamante ne moom mooy causé euh, accident yi wax naa leen ko léegi nee naa leen euh, yor sa téléphone di ko di ko manipuler bokk na ci waaye tamit nag dafa am loo xamante ni tamit bokk na ci li nga xamante ni moom moo di moom moo di moom moo di moom moo di accident yi liy cause accident yi mooy ñàkk xam ko de ñàkk xam ko de aussi mën na mën na def ay jéyee ci tali bi mbokk internet yi di leen rappelé na leen bu ñu paree ci loolu dañuy ñëw ci liste bi nga xamante ne bi tey ñoom ñoo faatu te xamaguñu seen mbokk liste baa ngi noonu ba tey mbokk internet yi képp koo xamante ne bi xam nga ci euh, ki nga xamante ne moom moo di mbokk ma rek mën nga koo jàllale ndax seen i mbokk mën leen a jël si fa la ñu nekk mi ngi noonu mbokk internet yi xanaa di leen jox dig day rek ba suba ak jàmm allah jërë ngeen jëf. Setsima l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér